bon dañ ko def doon doon def opération bi pour euh, préparer les travaux maanaam liggéey bi nga xam ne moom lañu war a liggéey si biir marché bi euh, comme marché bi gis ngeen ni mu mel salte na lool te kenn mënu ko commencé te désinfecté wuñu ko bon monsieur le maire avait sollicité à ce que nañ ñëw désinfecté ko balaa ñuy commencé travaux yeeg yooyu. vraiment buñ ko traité vous sa vous savez que ak ak ni mu mel ni y a tellement de microbes comme xam ko vraiment c'est des risques du fii di ko liggéey sans def traitement bi donc il faut désinfecter vraiment assurer la sécurité des travailleurs la pour vraiment mën mun a def le tout ba xam ne duñ fi jëlee benn jàngoro te vraiment parce que c'est le but ñuy liggéey pour di fi jële jàngoro donc nañ ko traité ba vraiment ñi siy liggéey dañu si liggéey sans risque sans danger ba liggéey bi sotti ak jàmm. bi ñu ñëwee euh, utiliser nañ euh, produits bi ñu naan Perical 480 ak euh, Agrigerme Perical c'est pour éliminer les insectes ak qui en sort Agrigerme c'est pour tuer les microbes. waaw on a tout utilisé. alhamdulilah on a la certitude que ne buñ ko vraiment buñ ko ni ñu ko traité vraiment am nañ si yaakaar te xam nañ ni vraiment nit ñi dañ si liggéey sans danger incha allah. voilà contexte coronavirus bi ñu si mën a wax comme tout le monde na ñu yokk mesure d'hygiène yi euh, di raxas saay sune ne sunuy loxo yi sunuy génne ñu raxas ko sunu ñëwee ñu raxas ko ak euh, saabu détergent lu xam ne day xëpp. xam ne dina mën a dina ak saleen dëkk ak auditeurs vraiment yàlla dinañ si mën a suturaal si coronavirus bi la waaw bon vous avez vu ah nii nañ ko gisee ñun bon <laughs> benn appareil pour désinfecter vraiment c'est peu mais vraiment on remercie le maire vraiment xam ne def na si mu ngi def effort bu mu mën si pour le service d'hygiène vraiment vraiment on le remercie à à travers les efforts muy fournir si pour le service di d'hygiène parce que vraiment euh, saa su nee suñ ko sollicité mu ñëw indil ñu appui te vraiment on a on a on a rien à